et suspicion boobu am l'objectif de ces informations est-ce que c'est de euh, déconstruire ces ces ces ces suspicions-là non mais bon c'est euh, euh, kii nu mu tuddati euh, même na man je pense que gi nga boo jëloon dix personnes nga wan leen caméra bi dinañ ñu leen li yéen naka naka ngeen a gisee caméra bi di nga am dix dix opinions yu différentes chacun est libre de qualifier de dire que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que c'est c'est facile man personnellement